va bien. Ça va, Nender. Ça va bien. Arrière, arrière, arrière, arrière. Ça va bien. Ça va. Oh, alors. Ça va, Nender. Ça va, Nender. Ça va bien. Ça va. Nender. Ça va bien. Hey. Ça va? Yaay Baye Mbeng, ça va, na ngeen def? ngeen def ça va bien alors oh ah na ngeen def namm naa leen yéen si jàmm oh ça va na ngeen def ça va bien jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf kontaan naa ah jaa ngeen jëf ça va boy na ngeen def ça va bien jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf

ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ay waajur ñu ngi wax bismillahi rahmaani rahim fii cay si dëkk bii nga xam ne moom lañuy ñu woowee jaxaay di tàmbali nag suma nuyoo ci monsieur le maire mel na ni teew na ndax jamono moo xat bu représentant teewee rek monsieur le maire teew na ñu ngi kontaan lool si kàddu yi rafet na di nuyu imam imam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm si ñaan ndax nag ñaan moom ngànnaay la si jullit jërëjëf imam di nuyu nag monsieur Ahmed Ndiaye président bu CODEC bu jaxaay di nuyu aussi soo homonyme monsieur Ahmed Ndiaye directeur bu école bu jaxaay 21 mon frère maa ngi nuyu suma mag Assane sila au conseil Assane nag li ma boole ak moom démb la ca doorin ba muy ginnaaw raay foofu mooy suma base lépp foofu la sosoo Assane waaye nag ci sa kanam ndax yaa ngi may tuddal sànq mbay yaa ngi sekk ñun ñaar ñoo doon dox ginnaaw raay ba Sandaga ak Laay Diouf di outil producteur léeg-léeg bu ñuy ñibbisi si sax duñu am paas waaye comme que ay nitu banlieue lañu tàmm na lu metti dañuy doxee Sandaga jaar autoroute ba ginnaaw raay yéen ngeen di sunu ay mag yàgguñu supporter yàgg gëm li ñuy def di ñu accompagner nga mën a sonn lool si doomu aadama ñu fekk la Mauritanie nga ne ah su may rak suma ay mbokk ñoo ñëw bàyyi lépp loo doon def accompagner ñu ci tournée bu ba mu jeex kon Assane tey bu ma ñëwee fii fekk la fii damay gën a am satisfaction jërëjëf kàddu yi rafet na waa ASC bi aussi sa doom rafet na maa ngi nuyu aussi monsieur Moustapha Ndong président de l'association des parents d'élèves bu école Jaxaay 21 Moustapha coono yëpp Moussa wax na ma ko jërëjëf yàlla na la yàlla fay

ànd bu rafet ànd bu noble ànd bu am fulla ak fayda ca démb te projet bi bi ma si waxtaanee ak moom si sama xel yam bi mu ñëwee daf ko yokk kon Moussa yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay maa ngi nuyu suma mbokku géwél yi tay sama askan rek la fi fek sekk ndaanaan bi di tuddé tuti sama ay rongoñ tour ndax sama samay mam fofu lañ cosaanoo muy njaañ bu mi dara kun gay fofu la né té ca maam yàlla ya te cosaan rek mo am solo ndax nak kunu tuddu sa rek sa deret yëngu maa lay sant di la gërëm di gërëm suma rak suma sœur Ndiémé Samb yow Ibou Sambay sa baay yow soxna kenn day sayaay ñu bokk traite bokk askan te nag kenn amul lu dul sa mbokk kon fii sama ay mbokk la fekk du nuyu Alsane Mbaye

mënoon ngeen nekkat fi fii sori na mënoon ngeen nekkat kat temps bi dafa xat waye bima ma gis leen sama yaram dafa daw ndax tay du musique waye nak tay suñuy dom la muy man di yeen ku ci nekk am nga doom bul jàngi bo amagul dom aussi ñaan nga yalla am soxna am dom dugal ko école kon tay combat bi ñun ñoko ko du album buy génn du concert du soirée waye jëf la kon maa ngi di nuyu yéen di suma staff à l'unanimité Boucher Ketchup cadre yi rafet les jumeaux momat ak Prince Demba War Papi les jumelles maa ngi leen di nuyu bu baax Eh, tey nag directeur li ñu fi andi mooy bëgg-bëgg bu yàgg nekk sama xol buur géwél buur géwél Dakar Actu maa ngi lay nuyu bu baax Magum Mbaye Diagne yàlla leen yàlla fay kontaan naa trop Omar Dakar Buzz ak si bi fi nekk yëpp ñëpp teew nañ télé yi waa police sécurité bi le commissaire merci beaucoup le préfet le sous-préfet maa ngi sant ñëpp daal di sant élèves yi waaye li ñu fi andi tey mooy lu yàgg nekk suma xol ay at ci ginnaaw dama mësa a concert ci àll bi bi may ñibbi si ay 7 h 8 h ma romb ben choc bu metti bouchon am ma ci ñu ne dafa am ben xalé bo xamné amul sax 10 ans auto dafa jaar ci kaw xalé bi ndax daf doon di jéggi autoroute bi mu metti ma pourquoi pas quartier bu nek wara am école mané li en tant que porteur de voix amna sama ma mooy sama jumtukaay dinaa ci bay sama waat ak sama image bés dina ñëw dinaa sol mbubbu soldaar bu ma yàlla dimbali lu ma am ci sama baat ndax musique mooy suma métier bi ma ko dooree quatre ba léegi lu ma am rek sama baat moo ma ko may ma ne suma baat boobu dinaa ko utiliser ak sama image sama jëmm dox ay jéego lu ma yàlla wërsëgal Sénégal jox ma ko ma nit jël ci delloo ko xale yi ndax na état mënul def lépp waaye ñun aussi mënuñu def lépp mais je pense que ti je pense que nii benn lam rek du yëngu ku ci nekk ca la nga sentir am ci yëg-yëg boo ci defee fula ak Pastef yàlla mën na la cee wàcceel barke te dama gëm éducation léeg-léeg sax ma naan yàlla mooy choisir destin wu nit waaye su ma yëgoon damay yeggale sama jàng ndax après laa am gis-gis ni que réew pour mu dox il faut éducation bi ñu def ci pastif réew pour mu dox il faut que bi mu wéru ndax nit boo wéree rek mën a dox say soxla nit booy jàngi doon xale nga dem ci école bu baax école bu baax nag mooy école boo xam ne classe boo xam ne am na hygiène am na ay table banc yu baax ñi fay jàngale dañuy am envie dem jàngale ci xale yi xale yi dañuy am envie yeewu ngir mën a jàngi am ay douche yu baax ay toilettes accès à l'eau potable accès à l'électricité école bi am sécurité je pense que ni loolu buñ ci defee passif ah même ñun suñu génération buñ ko fekkewul la génération future dina am ay jéego yu am solo tey su ma xoolee ci histoire ñu ne Corée ak Sénégal en 78 ñoo bokkoon benn point de départ waaye tey xoolal réewu kore bu ñu naan Samsung fa la jóge yundaay marque boobu fa la jóge dégg naa xale yi dañuy jàng 18 heures de temps par jour kon yi ma yëg te bëgg ko mooy sama jëmm ju ndaw ji awma nag ndax yàlla rek moo am te yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen maa ngi ñaan si yàlla yàlla defal ma sutura ba mission bi ma bëgg a dox si éducation yàlla defal ma si ndam ma ci woo ñëpp nag à l'unanimité bonne volonté yi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew amul xaaj amul seen ndax ni ma ko doon defee de 2009 à 2019 pour handicapé yi manam way laago yi yalla bolé mo won ak ñom décennie africaine nommé won ma ambassadeur de la décennie africaine mu nékkon 10 ans siège bu mag bi nékkon Afrique du Sud ci cap Town biñ ma koy fal ki mako fal c'était un mauritanien yalla nako yalla xaré aljana 2003 lañu dajé Bamako may tëggu concert ci stade 26 mars mu nekk xale bu ndaw mu am yek yek ni xalé bi kat message bi ñu bëgg véhiculer bu ñu jaaré ci mom en tant que artiste jaar ci Yaya Touré l'international footballeur ivoirien en tant que sportif dinañu toucher suñu cible lool mo waraloon sama relation ak Yaya ak yenen ak yenen kon projet bobu tey ma def ci handicapé yi ba ñu nekk suma ay xarit yéene boobu laa bëgg a def ak xale yi ndax xale yi suñu ay doom lañu tey sama doom mooy Mohamed su ma sañoon école bi muy jànge doomu ku mu mën a doon jànge ci école bi gën école bi suma doom di jànge ndax gënu leen ëpp leen dayo ndax nag ngëneel ci yàlla rek la su ma gisee xale yi nekk ci àll bi nekk ci village yi pour ñu jàngi day metti école yi ñu nekk day des di nga gis école yoo xam ne sax duñu xale yi duñu am ay toilettes ba léeg-léeg nga gis xale bu bëgg dem toilette dem ci voisin yi wala mu dem toilette ci école am ci classe am parce que xale xale la ba mën naa am kersa ne dootul dellu si ci école bi jàngam jaare fa yàqul ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ngalawaay je lance un appel solennel maa sénégalais bonne volonté aussi son excellence le président de la république monsieur Macky Sall le premier parrain ndax ñun ñëpp gis na président mang lay ci projet bi nga xaaruma ñu ma pour ambassadeur de l'éducation yëg-yëg bu ma am la may citoyen di sénégalais nag pur sang bokk ci réew mi di jeune di jeune gëm sama réew gëm ne développement wu Sénégal man Pape Diouf am naa ci cër am naa ci wàll am naa ci responsabilité kon maa ngi nu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp école bi nag dañu ñëwoon pour tabaxal leen benn classe

waye comme que dañu ñëwoon pour tabaxal leen benn classe yok nañ ko nañ ko def trois classes ñetti classes incha rabbi ci jërëjëf ko def dinañ ko def ñetti classe ndax li waral moy projet bi kat fi la doré comme que fi la doré nak lepp luñu mën ci suñu doole lepp luñu mën ci suñu ay relation lepp luñu mën ci suñu énergie dinañ ko def ci ak presse bi ndax ñom dañoo bok ci projet bi presse bi dañu bokk ci projet bi di ñaan yàlla xale yi fi jànge yal na leen yàlla yal na yàlla toftal ci ñoom barke ba ñu ne ah président génne na ci école bi ministre génne na ci école bi ambassadeur génne na ci école bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ASC aussi dégg naa seen yóbbante incha allahu rabbi lépp lu nu mën rek pour jàppale leen dinañ ko def ci sutura jàkka ji aussi dégg nañ seen yóbbante ci morgue bi incha allahu rabbi lépp lu ñu mën rek te yàlla rek tax dinañ si dugal suñu loxo di nuyu suma mbokk maalaw yi maa ngi leen di nuyu bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu vraiment merci beaucoup beaucoup ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am ñu matal am ñu matlewul waye bu motali amé ba légui kenn sonnatul bour kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu défaré ko li nga xamante modi petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen walu kattan ak seen walu wërgu yaram bu nek jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waye bi moy seen bour di bour kattan ballonnement mo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa bir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77